muy ndax saa su ne dañu koy faral di wax ñun ay porteur de voix lañ bu réew mi neexee wala bu naqaree it war nañ cee àddu naka nga jàngatee situation politique bi fii ci Sénégal actuel euh, ça fait ça fait très mal pourquoi non parce que da ngay da ngay toll fale di di teg sa bët ci yoo xamante ni di nga xam ci tàng-tàng bi li ngay doo bëgg lu dul jël sa jëmm rek mhm. tuxal ko ñëw fii xam bon kii ko dund ko ak ñoom. dund ko ak ñoom. comprendre c'est les mêmes personnes yoo xamante ne ñoom ñooy nekk ci benn cercle. Mm-hmm. di nax bu ñu la naxee benn benn euh, pendant cinq ans. Mm-hmm. keneen jox la yaakaar nga def ci kooku yaakaar. Mm-hmm. Euh, kooku ñëwaat te xamuñu ne le temps passe très vite parce que mosoo fi gis par exemple président sénégale bu fi def moins de deux mandats. comprends non mm-hmm. euh, kii astafurlah moins de moins de un mandat. Mm-hmm. ku fi ñëw deux mandats. deux mandats ngay def te man deux mandats yi boo ko jëlee maanaam bu dee mandat wu ans mbaa cinq ans. douze ans douze mm-hmm. ans génération la. comprends donc maa nit yaakaar loola pendant toute une génération pare mu tas yaakaar keneen ñëwaat. gëm loola. moo tax man au début pour ne pas te mentir j'avais des par rapport ak discours Sonko. parce que je me dis rek. même même cycle bi la rek. Mm-hmm. parce que fi ma fi ma fi ma tolloon ci euh, euh, ci euh, ci di mm-hmm. te déception bi ma ci am moo gënoon a rëy. Mm-hmm. donc kii daal même chose moom la moom la nar a doon. mais après il m'a fallu du temps pour ma koy déglu. ba xam nit rek buy wax lu nekkul ci moom. forcément après bu. bu demee ba yàgg voilà voilà dina feeñ. mais mooy gis ne par exemple qu'il est resté constant ci discours bi ak ci doxalin bi. ba tax tey jii nii par exemple boo gisee jeunesse bi yëpp jël euh, jox ko bopp. jox ko bopp c'est pas parce qu'il est xam nga du parce que juste day euh, day sol ay costume euh, mm-hmm. yu rafet wala soit juste gentleman la. Mm-hmm. xam nga parce qu'ils ont un espoir boo xamante ni ci kooku moom lañ ko kii quoi moom lañ ko gis. Mm-hmm. seen yaakaar ci moom lañ ko gis exactement. mais li fi xew moom wax dëgg yàlla c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment déplorable. des boo ci boo ci wax sax da ngay jékki sa. xam nga. Mm-hmm. maanaam sa deru sa deru yaram bi di. di kii ko akam mm-hmm. kii di taxaw. di taxaw mooy waral su may gis ñii di jël ay gaal di dem. Mm-hmm. ñii di euh, jaar ci ay yoonu suuf wala lu mu mënti doon bu njëkk ba ay jeunes koy def mais léegi da gis sax ay mag yu am ay trente sept trente sept et quelque wala ay quarante. di risque di dem. ñoo ñoo la gën a xam danger bi nga leen di wax noonu. ñoom ñoo la ko gën a xam. mais dafa am gaynde foo xamante ne bu fa tollee dootul dégg jàpp. amatuñ yaakaar parce que da nga yeewoo ci benn kër di gis situation bi ni muy demee. Mhm. xam la am am yaay joo war a sigil am papa bo euh, euh, papa boo war a aw. Mhm. waxtu bi jot te yow da nekk ci kër googu maanaam paabe lay mujjee yor. Mhm. loolu gor moomu ko. xam nga buñ ko waxee buñ ko waxul. gor mënu koo mënu koo kii quoi. mënu ko dékku mënu ko dékku mooy waral des fois boo gisee manifestation yi di am ngay gisaale muy am yeneen yenn genre. business yu si euh, am euh, déchaînement yi yi ciy am. Mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi dañuy dañuy encaisser di encaisser di encaisser ba ba des fois occasion boucan bu amee rek kenn du ko mën a contrôler day mel ni comme baraada boo jël teg ko ci ndox ba pare nga taal gaz bi yokk ba pare jël kubéer bi tëj ko comprendre. Mm-hmm. parce que les gens ne s'expriment pas ku fi wax ñu ne ràpp tëj. ku bind poste ñu ne ràpp tëj. comprendre maam daal ñoom benn benn discours moom la bëgg a dégg moo ko ne li fi waa ji def baax na te li fi waa ji def Euh, du ñu ne lépp baaxul. Mhm. mais li mu yàq moo ëpp que li muy defar. Mhm. comprendre mhm. ci côté ci côté ethnie ay genre affaire yu bari dafa dafa am affaire yu bari yoo xamante ni. daf koy yee comprendre ay xeet bii di wax ne xeet bee man maa la gën yooyu Sénégal daan na daan tàng yëngu wala yooyu mais yooyu kenn kenn daanu ko fi dégg. mais léegi da ngay gis nit ne man kii rek laa faral parce que juste ñoo bokk ñoo bokk ethnie. xam nga te Sénégal dépassé na dépassé na kii quoi comme ethnie. dépassé na ethnie waxee. donc yooyu yëpp yooyu yëpp c'est des yoo xamante ni da nga koy gis. Mm-hmm. sa xol di metti xam nga te doo ci mën dara donc li nga mënee rek mooy bu élection jotee nga sànniwaat par exemple sa carte ci ki nga xamante ni moom nga yaakaar ne. moo war a mën a dem. wax nga ko sànq bi nga koy soog déglu da nga toogoon ni ñoom ñëpp ñoo yem muy euh, ki nga xamante ni moo di Sonko waaye d'après bi nga déglu li nga xamante ni moo di projet yi nga xamante ni moom la présenté sénégalais lan nga jàng ci moom. waaw bon man daal euh, li ma ci gën a li ma ci gën a marqué bopp. Mhm. mooy surtout expertise locale bi comprendre. Mhm. Euh, lu jëm ci wàllum ouvrier yooyu noonu par exemple ñu may leen doole ba nga xamante ni des fois dina am yoo xamante ni euh, yu bari dootuñu soxlaati pour dem. Mhm. ci biti di ko fa di kii di ko fa jëli. Mhm. parce que des fois da ngay seen ay reportage yoo xamante ne ñu ne la par exemple léegi nii Sénégal lañ koy defee dañ koy jël exporté ko feneen ñeneen ñooñu jël ko defaraat ko indiwaat ko fi ñu importé ko mu gën a cher. comprendre mhm. donc moom tey bu bu mayee doole euh, euh, comme kii ko kii nu ñu koy artisanat bi. ba gaay ba xam nga il y va aussi des mhm. des ressources yi nga xamante ne Sénégal Sénégal Sénégal am na ko mhm. donte waxuñu ne par exemple Euh, du ñu liggéey ak benn tubaab. Mm-hmm. mais au moins bu ñuy bu ñu naree demee ak ñoom. Mm-hmm. ci ay ci ay accord de partenariat. mu mm-hmm. doon loo xamante ni par exemple ku ko gis. dina ne nii. Sénégal lay doon waaw. mais du doon ay damay ñëw rek la sama ginnaaw nga def ci xamagam nga def ci lu neex comme ni ko suñu njiiti di defee. you know macha allah loolu am na solo loolu waaye tamit euh, gis-gis bi ñeen ni yoo xamante ne à chaque fois dañu koy faral di wax ci Sénégal ñeneen di ko posé wu muy euh, injustice à chaque fois nit ñi dañuy faral di wax ni Sénégal amul justice gis nga loolu wala. yaa gëm naa ko. gëm naa ko. lu tax parce que xamul tax. Hmm. yow tey ji nii li la mën a fekk ci par exemple nga génnoon fii di sàcc euh, di sàcc euh, di sàcc ginaaru jàmbur wala nga sàcc mu xaru jàmbur wala lu mu doon. Hmm. ñu jàppale ci. Hmm. li la ci nar a fekk. waaw fekku ci par exemple tey jii nii koo xamante ni am na nijaay walla wala wala nangam nangamu euh, bu nekk ci nguur gi. kooku du ko ci fekk. ñaata nga fi dégg ay scandale yoo xamante ne diw fekk nañ ci xama ci këram diw nangam sàngam wala diw jàpp nañ ko ak ay billets noirs nangam nangam nangam ñoo ñu tey ñooy dugg génnaat fi bàyyi bàyyi ci biir ñoo xamante ne ay penu eh, kii nu ñu koy xee ginaar lañ sàccoon mbaa soit xam nga lax doon xeex gaañ kenn ah, donc justice boobu noonu mhm. te alors que ñoom ñëpp ci benn ci benn justice bi moom la ñu eh, kii moom la ñu tënk <laughs> après yow nga bëgg ma gëmloo ne ma fii nii am na justice mhm. Mm-hmm. amul justice fii dafa am justice pour baadoola yi am justice pour borom pour borom ndong euh, borom tànki mm-hmm. booy dugg daal yow fexeel ba am euh, kenn koo xamante ne ñoom rus nañ ko mm-hmm. koo xamante ne après moo la nar a moo la nar ñaanal njekk waaw ba ci politiciens yi boo nekkee ci nguur gi li ngay def mu jig la du bokk ak ñu nekk ci opposition bi buñ ko defee comprends fi may waxee. bu baax donc loolu justice boobu moom. Mhm. nañ ko nañ ko tuddee leneen sauf sauf kii sauf justice. sauf justice fi amul justice. fi amul justice non. Euh, sur le cas bi nga xamante ni sa frère la boo xamante ne yaakaar naa ne yéen bokkoon euh, li nga xamante ne moo di liggéey bi euh, révélation yi nga xamante ne moom la ko yoon tegee loxo sénégal yëpp gis nañ ko j'espère que seetaan nga ko muy nit dof mhm. ban jàngat nga am ci arrestation bi nga xamante ne moom la ko yoon def. eh mooy ma lay mooy li ma la waxoon sànq rek. bu fekkente ni wax nga loo xamante ni euh, mu arrangé na leen ñoom. Mm-hmm. ak loo mënti wax nag. parce que mm-hmm. am na fii ñu fi ñu fi téye micro. Mm-hmm. caméra tim leen. ñu ne nangam dañ ko war a rendi. wala wala xeet nangam dañ leen war a rendi ba ñu jeex. te kooku dara fekk ko ci. procureur autosaisirul kenn deful dara. parce que li mu leen eh, kii li mu doon nekk di wax mu arrangé na leen wala soit ŋàññu leen. mais ni def li mu wax donte bu fekkente ni rax na ci ay saaga. repris. Mm-hmm. xam nga bu ñu demee ba xam ne yaramam a tàngoon mu kii defaat na defaat na vidéo ci tàng tàng bi ne kat sama yaram a tàngoon def naa lii def naa lii. xam nga donc jégalu yee voilà. Mm-hmm. donc kooku je pense que li ñu koy toppee nii daanaka bi mu xasee bi mu xasee ba jégalu ñu wax ne par exemple mm-hmm. kon moom li mu doon wax tey na ko. comprendre def naa léegi. balaa nit ñi di réagir sax ma ma ma ñëw génnaat ne li ma wax de mu am na ci loo xamante ni déraillé naa. saa nangu say njumte exactement taxaw avoué donc je pense que foofu noonu. Mhm. loolu noonu rek xam nga na jeexaloon na match mhm. xam mais euh, comme li ma wax rek ñoom bu daa am position boo xamante ni boo fa kii boo fa taxee dañuy toog di surveiller te moindre fait a geste. Mhm. di xaar nga faqastalu benn faqastalu wala tey sax sa dëkkandoo sax ñëwoon ne waaye ne diw dee xam dafa ma sonal sama dëkkandoo la. day nekk di kii bruit. ñu wàccal la fi ñaari camion comprends donc justice boobu justice ñun gistuñ suñu bopp si ñoom. Mhm. gistuñ suñu bopp si ñoom ci dara. Mhm. ci dara amatu du yaakaar du salaamaaleykum maanaam jeunes yi sax nawlawatuñ leen. Mhm. comment fu may waxee. parce que bu njëkk ba da nga daan gis euh, takk der. bon police sax mën naa wax quoi mais bu njëkk ba gendarme fu mu wàcc. kon bi day set wecc. wala lu dëngoon jub xocc. mais tey bu ñu demee ba ay jeunes taxaw nii à cinquante mètres. di jëflanteeg saa yi gendarme wan ko ne xoolal man pare naa loo ci loo ci bañu bañu ma ko ci. Mhm. c'est parce que kooku sës na. Mhm. comprendre fu may waxee. Mhm. donc nañu nañu nañu nañu def séparation euh, séparation pouvoir yi. ku ci nekk wàll bañ la jox nga yem foofu gérer ko ci nu mu gën a kii te xam ne. Euh, maanaam euh, amel nañu amel nañu Sénégal. xam nga ñoom Sénégal jox na leen jox na leen ndomb tànk bu nekk jox na leen jox na leen teraanga bu lekk mais sénégalais ci boppam dañu war a dañu war a am jàmm seen man mën naa comprendre ma dem xam ma dem États-Unis ñu def ma fa xam naka su dul noonu su boobaa dinaa ko jéem a gérer parce que dama ne. Mhm. maa ngi dëkku jàmm mais duñ ma ko def. Mhm. xam nga ñoom foofu ki fa nekk résident ak même boo amul kayit même bu fekkente ni sans papier nga. Mhm. une affaire civile. ça se règle entre civil. wala soit euh, police bu ñëwee li mën a def mooy calmer. comme naa may waxee. mais fii nag moom policier bi mën na mën na mën na des dugg ci je ne sais pas procureur ou kii te policier amul maanaam kenn mayu ko maqaama pour muy nekk di àtte mhm. même bu fekkente ni xam nga deux personnes a jote li mu ci mën mooy calmer leen su mënul calmer mu jël leen yóbbu après ñoom ki war a pen plainte porter plainte bu ñuy bu ñu dem tribunal ñoom ñu dem tribunal. taxawaay bi ñenn ci sénégalais am xam naa dinaa ci xaw a euh, jaaraale noonu rek laataa ñuy tàggatoo muy ñu bëri dañoo gis ni nit daf ñenn ci ay mbokk rappeur am dañu ko seetaan taxawuñu ko à 100 pour cent ni ñu ko taxawoo gis-gis boobu lan nga ci wax euh, rescapé. bon euh, man li nekk ci li nekk ci plateforme yi euh, moom laa bon ci laa mën a wax. Mhm. parce que tamit xam nga fekkuma fi. Mhm. comprendre fekkuma fi mais biñ ko jàppee euh, ñi ma gis ñu naqarlu ko par rapport ak seen i xam ak seen i compte et tout bari donc du coup mënuma mënuma wax pour ñi nga xamante ni. Mhm. xam nga ñu ngi nekkoon ñu ngi nekkoon fii nii. kii quoi comme ci terrain bi. mais bon quoi qu'on puisse dire moom. li dof moom je ne pense même pas que rappeurs kese ñoo ko war a ñoo ko war a parce que moom il a tout donné pour le pour le Sénégal mm-hmm. comprendre jóge kaaw ñëw fii euh, euh, mu fi carrément mm-hmm. euh, et di di liggéeyloo ay jeunes xam nga di def l'un des plus grands spectacle yoo xamante ni chaque fois mu ngi nekk di am ci année bi mm-hmm. muy muy show muy show of the year et puis c'est humain parce que sama sama deuxième album xam nga ci elle est venue avec Midef bi may def sama sama conseil dédicace aussi xam il s'est déplacé donc euh, et puis je profite de l'occasion aussi pour lui xam euh, pour lui dire salut et que tôt ou tard moom xam di ñaan suñu borom génne ko foofu pour mu mën a dem Euh, dellu ci liggéeyam. Mm-hmm. et puis rejoindre rejoindre njabootam quoi. Mm-hmm. macha allah loolu kàddu yu am solo la maam Ali xam naa dañuy profité rek taxaw foofu waale ñenn si suñu ay xarit ku ci mel ni Fall Paradise ma jiital nuyoo bi ci moom ndax. jàpp naa ni verre yu naay si gars yëpp ci réew mi moo koy génne ah. Fall Paradise ñi koy nuyu bu baax a baax a ak suñu beneen frère Pape Diagne ñoom Aziz Fall gars yëpp leen di bëgg daal res. Diagne bëgg ceeb <laughs> bëgg ceeb defeyaan la booy boobu Diagne <laughs> yaa ngi wax ak booy boo xamante ne defeyaan la Diagne ah, moolul ma ne ko moom li ma li ma kii li ma yor ci ay dossier am daa bari. moo tax euh, euh, cër rek la ma mën a jox. <laughs> Ah, cër rek la ma mën a jox li ma ko xamal. ah caaraatu <laughs> <laughs> Fall Fall Paradise. et puis uh-huh. di nuyu waa euh, ñoom Badou de Wise. Uh-huh. xam uh-huh. ay prophète. xam maam xaa yee MC yi nekk parcelle yëpp. ku lim mhm. jum xam nga maa ngi leen di maa leen di bëggee ñoom ñëpp. Mhm. et puis di leen wax euh, xam nga euh, jàppatoo bàyyi la de toute façon. parcelle moom mhm. potentiel potentiel bi mu am moom euh, mosu fi jóg ñun moom xanaa peut li ñuy jàmbat mooy ay xam nga moyen d'expression maanaam foo xamante ni ay salle de spectacle ak yooyu xam nga loolu la ñuy jooy mais bu fekkee talent rek moom saa yi fii moom du fi jeex Mm. jeex du fi jeex du fi jeex yaakaar naa ne kàddu yi nga xamante ne seq nañ ko ci waxtaan doon na kàddu yi am solo loolu ñu nit ñu bëgg ci disponibilité bi nga xamante ne rek may nga ñu ko ñu dalal fii ci Sénégal Buzz 221 naam laataama tàggatoo ci samay question yi nga xamante ne jot nañ ko waxtaani bu dee am na loo xamante ne bëgg nga ko partage ak sénégalais te ñëwuma ci ma may la ko rek laataa ñu tàggatoo euh, bon je pense que je pense que wax nañ lépp mais mm-hmm. bon li may euh, li may wax euh, peut-être dinaa ko dinaa ko jagleel comme euh, sympathisant wu Pastef je ne dirais je même pas sympathisant wu Pastef mais ñi nga xamante ni par exemple Sénégal. Euh, les patriotes. waa Sénégal Sénégal ñor na leen. Mm-hmm. et puis ñuy gis metti na leen. comprendre ma xëy. Mm-hmm. Mm-hmm. ma ne ko euh, je comprends que le mal est profond. xam nga dëgg la. ndaw moom bu gisul bu gisul njiitam rek day day day day kii ko am janaxe mhm. mais li ma bëgg ñu xam rek moo ko ne euh, comme li ci waaju wax rek affaire bi c'est pas euh, euh, c'est la personne de Ousmane. Mhm. xam nga bien vrai que bokk na ci leader yi nga xamante ni xam nga ñoom ñooñu ñoom ñooñu gëmloo projet bi. Mhm. mais mais c'est un projet. te projet moom que locomotive bi nekk fi ñàkk fi nekk. projet bi day day day day kii ko am dox. donc xam nga ñoom nañuy nañuy nañuy doxal li ñu war a doxal. Euh, bañ wàññi dara ci seen gëm-gëm. Mhm. bi ñu bi ñu gëmoon ci projet ak gëm-gëm bi ak yaakaar bi nga xamante ne am nañ ko ci Sénégal pour que Sénégal mën a mën a soppeeku. Mhm. parce que Sénégal raay yu mu raay yu mu tegu nii moom. Mhm. Euh, mooy loolu li si yàlla xam li si yàlla xam doy na. tu vois donc euh, c'est dans les moments sant c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais hommes. et puis tous les grands mouvements ont souffert. muy ko doon mouvement wu Nelson Mandela xam nga j'en passe Martin Luther ñoom ils sont passés par xam nga mm-hmm. euh, ces étapes là mm-hmm. mais lu mu gën a metti rek day gën a définir par exemple grandeur grandeur combat bi nga xamante ni que moom la ñuy nekk di mëne mm-hmm. donc euh, donc amul bàyyi daas fanaanal la comprendre ba waxtu ba jot ñu firi rek waaw <laughs> firi rek bàcc rek bàcc amal leneen <laughs> mais kontaan naa bu baax a baax a baax ci dalal loolu franchement la gën a kontaan et puis euh, di ñaan suñu borom gën la gën la yokk amiin amiin amiin ci lépp looy ci lépp looy sóobu xam moom affaire moom lii la quoi am entrepreneuriat la. Mhm. doo toog xaar leen ci kenn. Mhm. xam nga mhm. euh, boo mënee benn rek. liggéey ci lu yóbbu si ñaar. yegg dis moo jafe mais boo xasee ba yegg dis moom après. dootoo jaar ci ay onze ak yooyu. wallaay moom vingt ci topp trente ci topp quoi. <laughs> incha allah man escalier bu metti la nag. mais gëm-gëm rek a fay. Euh, rek a fay jaarale nit mhm. man moom loolu laay lool laay loolu laay wax képp ku nekk ci yoon di di dem euh, di ko xos donc yàlla na suñu borom yokk affaire bi amiin amiin beneen yoon su ma fi ñëwaat fekk la sa xam sa ngat di studio yor ay employé ak yooyu noonu yëpp dafa am benn anecdote bu ñu ma fàttali woon mhm. ci bi ngay joué ji benn concert euh, Thiaroye mhm. yéegoon ci moto ak sa benn xarit gëm-gëm moo la yeggali loo dégg naa concert boobu la <laughs> fàttaliwaat ñu anecdote boobu tuuti rek ñu tàggatoo waale ko boobu fête de la fête de la musique la woon. la woon ñu demoon euh, ñu amoon spectacle yu bari ñu war a jouer. Mm-hmm. te puisque moyens yi demee foofu noonu. Mm-hmm. ñu jël deux roues quoi. Mm-hmm. ak sama benn bu tudd bu dëkk Big Town. mën léegi nañ jël deux nga xamante ne soobaa dinañ mën a def spectacle yu bari. Uh-huh. parce que jógee ay place de l'Obélisque wàcc Grand yooyu noonu. day ci oto non yee foofu nga nar a fanaan. ñu dem bu euh, place de l'Obélisque bi toj ko dem bu Grand Yoff bi toj ko mhm. ak suma juumul Liberté 5 xaw ma mhm. jóge fa nag war a dem Caaroy euh, mhm. fekk ba péage bi ñu ngi koy ñu ngi koy defar pareegul ñun daal bi ñu yéegee ci péage bi benn saan daal dañoo jékki-jékki rek man daal gis naa sama bopp ñuy nekk di glisser di dem <laughs> billaahi <laughs> xam li li ma may chance mooy xam nga temps noonu ñu ngi doon xam nga ñu ngi doon métti métti lu. jiin bu jiin bu ngant la asoloo. Uh-huh. hip hop bi di ko dund. <laughs> jiin bi moom moo moom moo may chance mais sama sama sama kii sama loxo yëpp. Uh-huh. yii nii yëpp ci laa ko ci laa ko kii quoi ci nga léegi. Uh-huh. yii nii ci laa ko jëlee léegi nag après volant bi volant bi dëng. xam nga ñu jéem ko réparé ba sonn. mais moto bi daal boo taalee comme booy daw nii lay def quoi <laughs> après ci la ñu ci la ñu soox. Mhm. soox ak moom soox ak moom xam nga gars yi dañu woo ñu naan yegg si nañ yegg si nañ yegg si nañ après bi ñu bi ñu euh, dugg ci benn kër raxasu xam nga wàccee pënd beeg yooyu mais que ñu ngi doon tàng boobu deret bi ki yëgul woon quoi. après mhm. nag bi ñu yéegee ci kaw seen bi waaye ci la xam nga ci laa gis gars yi di wax di joxoñ di wax di joxoñ donc ñu comprendre ñu woon. après ci la benn waay euh, ñëw ci kaw seen bi ak coton bu bari ne ma ne ma sa fee ngi naaj ci bi ma si génn ci laa gis ndekee kii nañ foofu yëpp quoi mm-hmm. donc yooyu tamit xam nga ci archive woon mm-hmm. man ma ni ma ni bon fête de la musique moom ñun ñu waroon noos mm-hmm. léegi musique bee ma musique ma amal lii xam nga mais bon yooyu yëpp tamit ay kii la rek jàngat la gëm-gëm taba boobu moo tax nga yegg si ba fii exactement mbir moom boo ci nekkee moom. Mhm. boo àndul ak gëm-gëm moom li lay li lay découragé loo day gaaw yomb surtout nag surtout nag Sénégal. surtout Sénégal. macha allah mm-hmm. yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo loolu maam Ali ci euh, dalal bi nga xamante ni dalaloon nañu ko ko suñu frère euh, rescapé saa su ne rek dama koy faral di wax bu ñu toogee ak ndaanaan yu mel ni ñoom dañuy bëgg bu ñu toogee def jotaay mu doon njëriñ ci askan wi ñuy bàyyi xel te jàpp nañ ne kàddu yi ñu fi yëkkati.